انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون برم بنينا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر أبوار رحمة ربك bu aju ci sa yërmande borom bi nga xam ne moom la yërëmoon abdahu jaamam ba zakariya mooy zakariya yonent yi ñu bari si ñoom gaa yi dañ leen tudde ay doom Zakariya Yaxya Isa ñooñu ay tur yonent la Zakariya moomee is jamono ba nga xam ne naa daa woona rabbahu boromam ni daa an ab woote xafiyan bu suufe waaw maanaam suñu borom yàlla day nettali bi Zakaria toogee di ñaan yàlla xam nga jàngoon nañ ci saar bi ñu génn euh, euh, yàlla di wax ne wala tajhar bi solaatika wala tuxaafit biha wabtagi bayna zalika sabila suratul isra borom mu ne wala tajhar bi solaatika booy ñaan bul wax sa kaw booy ñaan sa soxla bul ne ca kaw di ñaan bu ñëpp di la dégg yàlla maa ngi lay ñaan yalla may ma nangam allahumma nangam <laughs> dedet <laughs> yonent bi da fekkon ben way bo xamne day ñaan di wax ta kaw yonent bi ne ko yow ki ngay ñaan taxul ki ngay ñaan taxul yalla mu ne wala tajhar bi salaatika boy ñaan bul wax sa kaw la ngay ñaan wala tu khafit biha waye bu ko munum munum ko munum tu ci suuf bo bu taxé bayna zalika sabilan na nek ci digg bi na nek ci ci digg bi moy au moins yow na nga dégg sa bop na nga dégg sa bop même bu féké né eh, ki nga dendal déggul li ngay wax non lañuy ñaané mom Zakaria da tok di ñaan yalla lu muy ñaan yalla qala mu nga naan rabbi ya sama borom inni man mi di sa jambi de Zakaria wahana la azmu minni magatna de magatna naa de ah, am na lu mu bëgg wax de waaw ah. ah. eh bala mu koy joggi tur bala mu koy joggi wahana la azmu minni sama yax jamna mak ndigli tambale na ndigg ak tanki yi yaram bi soppeku na sey yalla yalla mo yeme de man loolu affaire bi ma yéeme la affaire bi ma yéem la maanaam doomu aadama ni muy développé waaw. c'est yàlla étape yi waaw nga jékki-jékki nekkoon waaleykum salaam nga jékki nekkoon xale bu góor bu fere bu fere ngay dem di dem yaram bi di changé bët yi di changé loxo yi di changé tànk yi di changé nga commencé booy bëgg a jóg fii bu ñu la yëkkatiwul doo jóg day ndeysaan allahu akbar man daal loolu jaaxal na ma daal man te yow doo ko yëg da ngay jékki di gis gis na yaa ci étape yooyu mais doo ko doo ko <laughs> doo ko yëg moom Zakaria daal am na lu mu bëgg a wax moo tax mu ne eh, rabbi yow sama borom inni man day wahana mooy fënax na al azmu mooy yax mi min ni ci man maanaam samay yax fënax na amatuma kattan yamu tere wastaala génnee na sama bopp bii ba jaaw wastaala meññ na maanaam jébbi na arrasu bopp bi sayban be jaaw bopp bi joxe na be maanaam karaw yu ñuul ya weex na xoolal lool rek karaw yu ñuul di ñuul di ñuul di ñuul di ñuul ba mu yàgg mu commencé di weex laa ilaaha illallaah ay waay karaw yu ñuuloon weex mais loolu kéemtaan la de wallahi kéemtaan la be jaaw be jaaw kéemtaan la de ndeysaan be jaaw wallahi be jaaw kéemtaan la Zakaria nee na man sama yax bañ na de te sama bopp bi tambale na be jaw sun borom ne ko lo bëgg wax mu ne walam akum bi duaayika rabbi shaqiyan te yalla yow lepp luma la massa ñaan rek nangul nga mako walam aku te nekuma ma bi duaayika ci ñaan yi ma lay ñaan rabbi yow sama borom shaqiyan di koy bañal manam do ma bañal dara luma la ñaan nga may mako batay waxagul soxlam de am na lu bëgg wax lolu nak ci méthode ñaan yi la bok ci méthode ñaan yi la bok mooy bul ñëw rek wax sa soxla même doomu aadama nit simple nii boo ko woowee téléphone soxla ko allo salaamaaleykum waaw Pa Niamaajo na def waa yéen si jàmm naka njaboot gi naka xale yi mbaa ñëpp si jàmm naka waa kër ga mbaa yaa si jàmm rek mbaa woppoo naka xale yi waaw man doo ko wax sa soxla waaye <laughs> waaye allo rek allo waaw yónnee foofu dix du la yónnee dara <laughs> du la yónnee du dara. <laughs> ah parce que nin ko sako bahul ah nin ko sako da ngay wala da ngay da ngay da ngay kii quoi da ngay nemmee ko ah man de dama sama xel moo nekkoon coow rek mu la doon woo waaye mënoo xool ci loo def rek mbaa kenn woppul mbaa yaa ci jàmm rek ah waaw mais ah man am lu ma soxla woon de yoroo foofu dara gis gis nga voilà moom loolu la def ni Zakaria yàlla it noonu lañ koy ñaanee bokk na ci méthode efficace yi ñaan yàlla mooy nga wax yu baax yi mu la defal d'abord waaw ah, wax ko nga wax xéwal li nga ne ah yow sama boroom yàlla ginnaaw li gën a efficace ci ñaan bokk na ci mooy nga toog toog mais booy toog bul toog n'importe quel toogin bul toog tàllal say tànk bul toog euh, euh, jonkan bul sukk maanaam da ngay toog toogin boo xam ne toogu ku yërëmtalu toog ku yërëmtalu sooy ñaan quoi laay wax toog ku yërëmtalu lem tànk yi bu fekkee man nga ko tabaxan bu dee mënoo ko am problème lem tànk yi yaa ngi dégg jël sa tànk yi tànku càmmoñ bi jaaral ko ci suuf toog ci toog ci tànku càmmoñ bi taxawal kii bu ndeyjo xam na xam ngeen li ma wax voilà c'est que jigéen ñoo tax may expliquer quoi mais bu doon góor ñi moom dama koy def léegi voilà non du façon boobu voilà gis nga bu booy sëlmal ni ngay tooge booy waa kañ nii voilà nii waa kañ noonu voilà noonu al al al al al al iftirash ba tànku càmmoñ bi tànku ndey dem dang koy lem dagi ngi dang koy lem taxawal me me baram bi jël tànku càmmoñ bi dugal ko suuf mu dem ne nga daldi nga daldi tok kaw comme boy sëlmal rek ni ngay toge wa nga daldi di say loxo wéy nga wacce sa wacce sa kanam bul teen ci kaw wacce sa kanam ngay ngi ngou am na ñuy wax ne sax soo ne dëngal sax sa baat mana wane ku torox ku ku sonu ndaysan ku waaw parce que yonent bi day wax ne na ngeen yërëmtalu ci kanamu yàlla mu yërëm leen na ngeen yërëmtalu am na xalis buy wax sax nee boo boo mënee jooy jooyal boo mënul jooy na jooy jooylu ah boo melee ni man moom doo jooy man du ma jooy mukk man sama xol bi dafa dëgër këj <laughs> ah <laughs> incha allah dama nekk xale de ah? <laughs> donc man na nga jooy boo mënul jooy na nga na jooy jooylu. al ko wax de waaw di ñaan yalla subhanahu wa taala mu ngok kon dal zakaria def na ay ñaanam mu ne ko wa inni ya sama borom man dal li tax malay wo moy xifsu dama ragal al mawaliya ñima fi bayyi suma faato min waraa'i sama ginnaw wa kanat imraati way xamna ne sama soxlan sama soxna si nak nek na aaqiran di jasir man ta am dom fahab andak lolé lepp nak fahab yalla ma ngi lay ñaan nga may ma mu ñel ma min ladunka mu baye ko ci yow waliyan ku may remplacer suma fi xol li mu wax rek mom limi ñaan yalla moy yalla man dama ragal suma suma fi jógee ñi may baye sama ginnaw ndax dinañu continuer mission bi ma nek xam nga yonentu yàlla la waaw mu ragal ndax ñim fi bàyyi dinañu mën a continuer mission bi mu ne waaye nag mu ne yàlla nag man xam naa ne sama soxna si mënatu la am doom ànd ak loolu damaa bëgg nga may ma doom xoolal loolu rek loolu mooy confiance en Allah wóolu yàlla xaw ma nu ko noo koy defee moom mais xam naa ne man nga ko allahu akbar xaw ma nag noo koy defee mais yàlla man xam naa ne man nga maa may doom ànd ak ne man xam naa ne soxna sii moom mënatul am doom moom ci sama xam-xam ci sama xel waaye maa ngi lay ñaan doom. ménopause na loolu moo tax loolu moo tax yow boo amee soxla ci suñu borom ñaan ko rek bul ne waaye loolu mënul nekk waaye déet rek ñaanal rek moom suñu borom tëlewul dara moo tax koy ñaan ñaan ko rek waxal li nga bëgg rek waaw. nu muy amé nu muy wax li nga bëgg rek waaw Zakaria dal néna rabbi yow sama borom dama ragal ñi nga xamné ñoma wara remplacer sama ginnaw bu ma fi joggé ma nga lay ñaan nak yow yalla nga may ma doom waye xamna né sama soxna sii la am doom su ko défé doom joju ma lay ñaan yarisuni nii may wa yarisu mu don min ali yaquba ci njabotu yonent yalla yaqub parce que yonent yalla yaqub ay yonent lañu li muy tekk li mu bëgg wax mooy mu nekk yonant doom ji na nekk ab yonant parce que yonant yi kenn du leen doon ci xaalis yonant yi ñu amoon milliard bu ñu faatoo dañ koy saraxe yonant dafa am ci ay particularité mooy kenn du ko doon ci xaalis yonant kenn du ko doon bu faatoo li fi bàyyi yëpp dañ koy saraxe wajaalhu te yow yàlla xale bi nga may may wajaalhu na nga ko def yow yàlla rabbi yow sama borom yan mu doon koy gërëm doom ji may may daf ko mu doon koo xam ne danga koy danga koy gërëm ndeysaan mu ngi ñaan doom de koo xam ne màgget na soxna sa ménopause na soxna Zaka Zakaria mu mosul am doom mosul am doom bu doom ji muy ñaan nii mosul am doom waaw doom ji muy ñaan nii daal euh, moom foofu la amee doom léegi nag def na ñaanam ba noppi ñaan gi pare na parce que wax naa leen bokkul ci efficacité ñaan ngay lim ay mbir yu bari di lim rek di lim di lim rek boo jógee ci lii dem ci lële boo jógee ci lii dem ci lële boo jógee ci lii dem ci lële ah baax na am na solo de waaye boo jàngee alquran moom méthode yonante yi doon ñaanee day tënku wu tënku yàlla Muusaa la mu waxoon rabbi yow sama borom inni man mi li ma anzalta lépp loo wàccee ilayya ci man min xayrin ci lu baax rek faqiirun ku ko soxla laa mu jeex ñaan gaangoo yalla lepp lo wacce ci man ci ay xewal rek soxla nako bu jeex bi mu waxe lol yalla nangu ñaan gi def ko yonant wërsëgal ko soxna defal ko njabot jox ko pouvoir Musa kan lol la ñaanon yonent yalla Ibrahim rabbi habli min salihin yalla may ma njabot gu bax yalla may ko njabot gu bari def ñep ay yonent ay sëtam sa nek ay yonant ah. sunu yonant Muhammad ñew ne rabbana yow sunu borom atina defal ñu fi dunya ci aduna hasanatan lu bax wa fil axira te alaxira xasanatan lu baax jeex na maa la ko wax waaw gàtt na lépp ngi ci biir waaw ku faatu ku dem alaxira nga ñaanal ko yërmaane allahuma war lahu warhamhu jeex na allahuma yow yàlla kii faatu ixfir lahu yàlla nga ko jéggal warhamhu yàlla nga ko yërëm jeex na bu ko jéggalee du ko toppi bàkkaar bu ko yërëmee dugal ko aljana jeex na mais bokkul ci xikma mbooloo toog nga téye leen di rabb ay ñaan muy dem ca kaw rek nga téye nit ñi bokkul ci ma ñaan gi nag gàtt ëmb lépp matale waaw mu ngoog kon Zakaria daal lii mooy ak ñaanam waaw ginnaaw bu mu taggee yàlla kañ yàlla daal nee na ko yàlla may ma njaboot léegi nag ñaan nga nangu na de ñaan nga nangu na sunu borom nee na ko yaa Zakaria e yow Zakaria inna nun ñii yàlla nu bashiruka doo ngi lay bégalee bi xulaamin ci xale bu góor boo xam ne ismuhu turam mooy yaxya yaxya kon yàlla da koy may doom pare tuddal ko doom ja te xale bi ñëwagul juddoogul de yàlla jox ko mooy kenn ku ko am ci kaw suuf ñaar muhammad tamit amoon na ko yonent bi alayhi salaatu salaam turam moo ko jiitu ci àdduna muhammad alayhi salaatu salaam turam moo ko jiitu ci àdduna suñu borom nee na ko zakariya ñun dinañ la bégalee ci doom joo xam ne ni muy tudd mooy yaxya yaxya doom joojee lam na la lahu min qablu samiyan dootoo am kenn mënta am doom ju mel ni moom waaye tur boobu it kenn mësu koo tudd kenn mësu koo tudd amul kenn ku mës a tudd yaxya avant yaxya mii ki mooy premier tur pour moom pour moom waaw waaw léegi nag Zakaria tiit ndax yàlla nee na ko nangu naa ñaan gi dinaa la may yow doom moom nag xel mii nag nankaan waaw lu nu mën a nekke man màgget laa sama soxna si wa sama soxna si euh, ménopause na ndeysaan qaala mu ne moom Zakariya rabbi yow sama borom annaa yakunu lii xulaamun waaw man naka laay amee doom xoolal moom moo ñaan ba pare dinaan nan laay amee doom anna yakunu li gulaam waa yàlla nan laay mën a amee doom wa kaanat imraati te sama soxna si nekk na aqiran di ko ménopause wa qad balagtu te man mii di Zakariya egg naa minal kibari ci ay at atiyan yu bari màggat naa fi mu man màggat naa soxna si ménopause na yàlla nu ñuy amee doom tamit ndeysaan ah parce que xelu doomu aadama nag mooy jigéen buy gis règle moom mooy am ay doom jigéen moom bu gisatul ay règle moom ci scientifique moom scientifiquement parlant mooy waru am doom sax ménopause waaw xaala yàlla ne ko kazalika liki noone xaala la wax rabbuka sa borom huwa moom yàlla alayya hayyinun may la doom si situation yooyu lu ma yomb la man yàlla borom bi daal da koy tontu lool na ko loolu yomb na ma lool pour nga xam ne yomb na ma sax waqad xalaqtuka bul fàtte nag Zakaria man maa la bindoon man yàlla de min qablu lu njëkk te nekk woon dara walam taku say an te nekk woon dara man maa la bindoon te nekk woon dara ah? man mi la sàkk te nekk woon dara bu mun a bëggee may doom kay yomb na ma ah waaw te ñun ñëpp fa la yàlla subhanahu wa taala jaar ak ñun léegi nag Zakaria daal di demande preuve xaala mu wax moom Zakaria rabbi yow sama borom ijaal lii defal ma aayatan benn preuve c'est pas dafay laaj preuve parce que gëmu ko mais dafa bëgg xel mi dal mu rassuré wu li yonente yàlla Suleymaan ne yàlla wan ma nooy dekkalee lu dee yàlla ne ko xanaa gëmoo ne mën naa ko mu ko ahan gëm naa ko mais damaa bëgg ma am tranquillité de Ibrahim waaw Ibrahim mu ngoog damaa bëgg am xel mu dal rek wan ma nooy nekk dekkale lu dee yonente yi daanañ def loolu daanañu laaj yàlla mu defaleen ay kéemtaan ay alaama yu leen di wan ne lii dina nekk yàlla ne ko xaala suñu borom ne ko aayatuka sa mandarga li lay wan ne dinaa la may doom mooy allah tukallima naasa bés ni ki tey dootoo waxati salaata la yaa leen sawe yan pendant trois jours damay tee sa làmmeñ bëgg a tontu rek làmmeñ ba dem yàlla ne ko dootoo waxati tee gi may tee sa làmmeñ pendant trois jours ma delloo la ko preuve la buy wane ne soxna sii dina ëmb naa la ko may na dinaa la may doom ci moom lolu dila tekil ne ku la dikk lu la joxagut ngay xiini xana mu récupéré lo xamne dèjà mu ngi say loxo ko nga xamne ko man mën na laa jox ku la xañ li ne li nga mom war na la mën jox lo amut ku am kàttanu xañ la li nga mom bu la diggee lo amut war nga ko gëm parce que li gëna défé moy xagn lu mom lolu mo gëna défé de ñëw fekk la sa biir kër am katan ak doole gum la fa meuna génné te mëno ci dara bu la né dina la duggal ci kër war nga ko mën gëm <laughs> waaw moom Zakariya fa xaraja mu daal génn nag ala qawmihi ca mbooloo ma minal mihraabi jóge ci biir jàkka ja fa awxaa mu ngi leen di joxoñ ilayhim jëme ci mbooloo ma naan leen an sabbixu sabbal leen bukratan fajar wa ati waa asiyan ak ngoon mu ngi leen di soññ kat pour ñu jaamu yàlla ndax làmmiñ ma mënatu la dem fi mu ne leen di liyaar di leen liyaar na ngeen góorgóorlu jaamu leen yàlla di waaraate mais ci ay ci ay liar parce que lamagne bi dem na mënatu la wax waye nak su beugé wax ak yalla mom lamagne bi day ñew su beugé def ay zikir ko bu beugé wax subhanallah alhamdulillah allahu akbar turu yalla yi bu ko beugé wax lamagne bi day wax su beugé wax ak nit ñi nak lamagne bi dem léegi nak yahya judduna su mborom ne ko ya yahya e yow yahya khuzil kitaba bi malay jox bi quwwatin ci katan téere ba mooy tawraat jël ko parce que lii ginnaaw yonent yàlla Muusa la yàlla mu ne wa aataynaahu yaxyaa ñun defaloon nañ ko alxukma atte sabiyan fekk mu ngi nekk xale borom bi nee na dañ ko joxoon xam-xam fekk mu ngi nekk xale bu ndaw même pas dix ans yàlla defal ko xam-xam moom yaxyaa waaw waxanaanan li ko yàlla may boole woon na ci ñeewante ku ko gis danga koy bëgg dafa adorable ku ko gis rek danga koy bëgg min ladunnaa bu bàyyi koo ci ñun wa zakatan yàlla yit nee na ma laabal ko du def bàkkaar ma setal ko wicc ci bàkkaar du du may yàlla ndeysaan xam nga kon doom ju baax la de wakaana te moom nekk na moom moom yaxyaa taqiyan di ko ragal yàlla wakaana taqiyan mooy nekkoon na ku ku ragal yàlla fala yam mu ne déedéet moom yaxyaa bokk na ci ay jikkoom wa barram ku baax la woon nag bi waalidayhi ci ay ñaari waay juróom waaw toujours rek ñoom ñaar ñooy ànd jaamu yàlla baax ci ñaari waajur du ñu tàqalikoo mukk fu yàlla waxee nit ku baax la woon rek ñaaree day wax ne noonu la meloon ci ay ñaari waajuram loolu moo tax soo bëggee may sa doom boroom kër bu la góor wutsee ñëw ci kër gi di bëgg sa doom bu jigéen soxna yonent bi nee na nga xool ci moom ñaari mbir ñaari mbir mbir yooyee mooy diine ak jikko diine ak jikko diineem nag koñ ba ñoo koy xam waa quartier ba mën nañ koo xam nu mu def ak jàkk ja koñam am na jàkk waaw nu mu def ak jàkk ja su fa bëriwul tànk rek amul diine première mandargay am diine moom mooy bëri tànk ci jàkk ji nga dëkk ci kart bi nga dëkk ñu xàmmee la jukka ji nag jafe naa xam tànk dundoo ak moom waaye man ngaa laaj nu mu defak ay waajuram ñaaree doomu aadama jikkoom day manifesté wu diggante moom ak ay ñaari waajuram bëriwul doomu aadama lu muy tricher diggante ñaari waajur loolu bariwul li nekk sew ngay wone li nekk sew rek nga leen di nga leen di won kon bu la nit wutse xale bu goor bu juga sa keur di wut sa dom fexel nga xam ban comportement la am digante mom ak ay param bu de goor bu respecté ay waajuram surtout yayam boko joxe jabar dina ko tey fo fek goor bu fonk yayam day tey jabar setlu lima la wax rek parce que ñaar yi andul c'est incohérent nga nga nga fonk nga fonk sa yaay lol di toroxal sa jabar loolu mën naa am de mais bariwul de xanaa soxna si ñëw ba ñu jubóog yaay ji soxna si ñëw ba ñu jubóog yaay ji boo fekkee ku fonk yaay moom mu takk la indi la ci biir kër yi nga ba ñu jubóog yaay moom doo doo nekk ci jàmm jàmm moom doo ci nekk moom waaw waaye boo amee xale bu góor boo xam ne day saaga waajuram bu góor toppatoowul yaayam boo ko mayee sa doom yaa ko def de waaw xale bu góor bu fonkul yaayam moom man da yàgg ci téye jabar mukk ci àdduna mukk yaay lu am doole la ci lislaam aka am doole waaw maa la ko wax ginnaaw yàlla ñaari waajur yi ñoo ci tegu ginnaaw yàlla ñaari waajur ñoo ci ñoo ci tegu suñu borom daal nee na Yaxya ku ragal yàlla la woon waaye ku baaxoon la ci ay ñaari waajuram walam yakun jabbaran nekul won ab bandi de asiyan buy moy ñaari wajuram nekul won bandi salamun jam rek nak alayhi moy yahya ci mom yahya yawma ma wulida bes bu mu juddo wa yawma ma ak bes bu muy fatu wa yawma ma hayyan ak bes bu muy dekki ñet ñet jam la ko yalla assuré day am jamu bam juddo day am jamu ci aduna day am jamu ci alakhirah lol moy jam yalla nu gal defal borom xam-xam yi nee nañ jàmmam ji yépp ñaari mbir ko may muy baax gi mu baax diggante moom ak boromam ak baax gi mu baax diggante moom ak ay waajuram jeex na moo ko indil jàmm bi mu juddoo indil ko jàmm ci aduna indil ko jàmm ci àllaaxira parce que doomu aadama ñaari relation dong la relation verticale ak horizontale sa ak sa borom moo def nii def nii sa ak say ñaari waajur boo baaxee say ñaari waajur doo am problème ak doomi aadama yi te boo baaxee say ñaari waajur keneen ku la ne da ngaa bon amul solo boo baaxee say ñaari waajur ba tagg la keneen ku ne da ngaa bon amul solo waaye boo bonee say ñaari waajur na àdduna bi yëpp ne dangaa baax amut njëriñ sàmba alaar nga tekkiwul dara maa la ko wax waaw buñu xamone li nek ci topoto ay wajur ñun ñun ñun defuñu ko sax niñ ko wara def deug deug yalla xamna ko wallahi ñun defuñu ko niñ ko wara def deug deug deug dëgg defuñ ko nonu parce que amna yo yoo ñun defuñ ko ñun defuñ ko dom juy jël tank ñaari wajuram diko duggal ci ko diko rahas lol man mosuma moko def di fóon sun yaay di akolat di fóon amna ñu koy def mais bëriwul de bala ngay manam euh, assurer parent bi lu ñu tuddee bien-être xaj sa bopp defaral ko ñun dañuy bàyyi suñ papa yi ci néeg yi nga xam ne biñ juddoo fa dañ leen fekk dem dëkk ci ay appartement ñun yooyu la ñuy def waaw le minimum nag mooy nga may nga may leen jàmm loolu mooy le minimum mooy nga may leen jàmm waaw jàmm waaw loolu ça c'est le minimum moo leen mënul defal may leen jàmm waaw kon moom yaxyaa loolu moo ko indiloon xéewal yi nga xam ne moo ngi ci woon ci àdduna waaw yonent bi nee na sallallahu alayhi wa amul benn doomu aadama bu mosta juum ci kaw suuf nee na ba mu des yaxyaa mosul def erreur mhm. mosul def erreur waaw yaxyaa rek mooy koo xam ne mosul juum ci kaw suuf xam nga loolu yombul léegi nag histoire Yaxya ak baayam féete na boor loolu kese la woon muy Zakaria ñaan na yàlla mu may ko doom yàlla nangul na ko may na ko doom foofu liñ fay jàngatee mooy lan mooy yàlla telewul dara lu mu bëgg a def def ko beneen jàngat bi aussi mooy yow mii en tant jaam. lépp loo soxla ci yàlla bul découragé ñaan ko dana la ko may ñetteel ba mooy yow mi jigéen di sëy te amoo doom nekk xale bu jigéen di sëy te amoo doom bul découragé waaleykum salaam bu yeboo médecin yi médecin yi xoolal sa biir bi def ay scanner non biir kenn du ko scanner bopp la ñuy biir lu ñuy def écho écho biir bi xool ne la da ngaa manqué ay nen sàngam daa manqué. ofil sàngam si seen affaire scientifique yooyu nañ ko wax ñu nangul leen ko it nag waaye yàlla loolu yëpp tëwu ko de yàlla mën na fee jégg yooyu yëpp may la ay doom kon bul découragé ñaanal ñaanal bul mës a waaye it nag bul force ñaan gi mooy bul ñaan jàpp ne par force dañ lay may waaw ba tax na ngay jooya ka yërëmtaloo ka amoo doom rek bëgg a tukkal àdduna bi am na jigéen ñoo xam ne loolu la da ngay sëy ci kër amoo doom rek jàpp na yow amoo dara fu ne nga dugg fa yéeg wàcc fu ne nga dem fa ah lu ne nga bëgg cee dugg bëgg ñàkk sax sa diine am na ñoo ne am na jigéen ñoo xam ne am doom jaral na leen lu ne lu ne jaral na leen ko waaw jaral na leen dem ci njabarkat yi dem ci sëriñ si lu ne jaral na leen ko te yow mën ngaa am doom mu mu lay sonal. man gis na ko xamanteni ni neena man suma ma mënoon sama doom dama len di wannaat xam nga kon koku da rëccu da rëccu ah suma len leen mënoon dama len di wannaat waaw donc kon lolu ci jangaji la mu dess nak histoire yonentu yalla aïssa ak yaayam wala ñuy dugg nak moy histoire bu reuy bi suñu borom mu ne waskur na nga tuddu waskur na nga waare fil kitaabi maryama ci téereb maryam looy waaraate foofu idin tabasat ba mu beroo kan moo beru maryam min ahliha ci fameem makaanan ci place boo xam ne sharqiyan ca penkum jàkka ja parce que maryam bi ko yaayam ëmbee muy soxna imran bi mu ëmbee maryama dafa neuseur xam nga neuseur moy jël engagement sa diggante ak sa borom soxna ci dafa ëmb Mariam yaakar ne góor la ëmb mu ne ngi lay ñaan sama dom ji nga xamne mom la ëmb bu juddo dama la kay jox dama koy bayyi ci jakka ji mu lay liggeyal jakka ji mi wax euh baytul maqdis kooku di wax foofu bu dee téléphone lay wuyu nañu baal mu génn baytul maqdis mooy néeg bi nekk Jérusalem baytul maqdis jàkka ji nekk Jérusalem soxna si dafa ne sama doom ji bu juddoo dama koy jox jàkka ji maanaam dama koy may yàlla da ko daal di koy nësër yaakaar na góor la ëmb ba mu wasinee mu gis na jigéen la ëmb jigéen la mu ne ah yàlla man day góor laa waxoon laa lay jox waaye gis na jigéen moo fi ne yàlla mu ne maa gën a xam li nga ëmb te xam naa ne góor bokkul ak jigéen waaye jox ko jox ko jàkka ji kooko laa soxla loolu moo indi Mariam ñu jox ko jàkka ji mu féete si biir jàkka ji di jaamu yàlla di toppatoo jàkka ji bi mu demee ne ba commencé majeur xam nga majeur na fi mu ne ba wartu la jaxasoo ak mbooloo mi jàkka ji daa bëri woon ay góor presque moom rek moo fa nekkoon jigéen bi mu demee ba yëg ne tàmbale naa majeur nag mu tàmbale jël distance am ak xale yu góor yi daal di génn jàkka ji dem ci penku jàkka ja luy tolloog luy tolloog presque mënees naa wax sept kilomètres ci jàkka ji mu daal di fay defar ab mbaaram defar fa ab néegam daal di fay nekk heure jaamu yàlla bu jotee mu dox ñëw ci jàkka ji daal di fay jaamu yàlla su paree mu delluwaat bu ñëwee mu root bale fomp yi war def yëpp en tant que jigen mu def ko su pare mu delluwaat ci dekk boobee loolu lolou jangat bu reey reey la bu lay wone jigen mom amna fu muy tollu mom dañ ko war a séparer ak gor ñi même sa ñaari sa doom yu góor ak doom yu jigen ñi bu ñu commencé jëm mag tàqale leen tàqale leen ci walu bokk nek tàqale leen ci yu bare bare bari waaw ñun bi ñu xalé dañ daan fowé gornya ña ca góor ña jigéen nyama ca kus waaw waaw me legi lolu amul legi jaxaso rek waaw jaxaso rek yagul déedéet yagul gornya ña ca góor ña jigéen ña ca jigéen ña dañ la koy sax wa même boy dem toog si jigéen da ngay gis ñu la koy xasse yow gor toog si biir jigéen ñi góor toog si biir mais legi laa ilaha illallah parce que léegi nag xale yu jigéen ñi xale yu góor yi ñooy aay aay léeg-léeg nga romb ci mbedd mi góor ak jigéen di aay ah, ah. ah. rek maa la ko wax góor ak jigéen moom taqalikoo rek séparation rek waaw ah, waaw parce que yàlla li mu def seen diggante moo garaaw dafa yéeme te ci góor la gën a danger nag ku góor ki moo nekk en danger waaw diggante góor ak jigéen bu ñu jege loolee yow góor yaa nekk en danger loolu la yonente bi wax laa yaxluwanna rajulun bimraatin yonente bi nee na yow muy góor waaw bul nangoo wéet ak benn jigéen benn jigéen bu ko nangoo wéet Sëriñ Tuubaa mu ne in tadunu minha miradan laa taslamu boo wéet ak jigéen bu la yóotoo da lay jàpp te doo ko rëcc te bu la jàppee du doo doo rëcc bul nangoo wéet parce que li ko waral mooy yow yaa gën a fragile yow ku góor ki yow ku goor ki gis nga jigen jigen boko intéressé wul rek intéressé wu la jigéen boo intéressé wul intéressé woko amo no noo mën a def xel amul bo jëlon ben ben xalé bu jigen bo xamné dang ko solal yere yu rafet defar ko nim wara mel nga defar ko gis ay xalé yu goor yu tok fe di tek sen ataya di waxtaan nga ne ko rombal foofu nga dem gis nga buy romb xalé yu goor yëpp baye xel ci mom ñoom ñëpp ñëpp ñëppay bàyyi xel ci moom ki doon fuural sax soo ma day arrêté day arrêté mi fuural bi ba xale bu jigéen bi romb mais jëlal xale bu góor nga solal ko ba mu rafet xeeñal ko parfum yi gën a xeeñ ci àdduna bi solal ko yére yi gën a rafet ci àdduna bi daal di koy xool ay mbooloo xale yu jigéen yu toog nga ne ko rombal foofu dem gis nga bu fa rombee benn wala ñaari xale yu jigéen ñoo koy bàyyi xel ñu des yëpp duñ ko mën nañ ko bañ a bàyyi xel parce que jigéen noonu la ko yàlla bindee. Madame, jigen amul luñu ñu jigen amul amul euh, euh, voilà jigen day dégager jigen day dégager li mais li na ci mom day di dem day dégager yow comme acier jigen góor day xëc di acier day xëc jigen nak day comme Eh, Kiam yam dafa faible trop manam li attirer ci mom dafa faible dafa faible gori pour mu attirer yombul mais alors que jigen nak dafa bëri la loolu moo la la plupart fay utiliser jigen pour danel nit pour danel nit moo tax yonent bi saa salaam lima ragal ci sama xet sama ginnaw moy jaxaso digënde góor ak jigen man la digënde góor motax même bo dé célibataire takal nak ma nga bayyi boy labat takal rek ma nga bayyi waaw boo mu bëggee takk daal takkal soo takkul bàyyil bul génn de waaw bul génn de génn di jëm fan bu ko def <laughs> génn di dem fan déedéet ëpp naa def waaw mu ngoog kon Mariama moom ba mu mëseeree daa beru dem ca penku dëkk ba daal di fay toog fa taxasat mu daal di jàpp min doonihim walis mbokkam ya xijaaban séparation dafa teg séparation kay lu ñu tuddee mbañ gàcce mbañ gàcce la def comme nii comme ni ñu def fi jàkka ji waaw def benn rideau boo xam ne mooy séparé diggante góor ñeeg góor ñeeg jigéen ñi waaw fattaxasa min duunihim xijaaban léegi nag yàlla nag ne ko ba mu defee loolu nag fa ca saas ya arsal naa laa yebal ci moom ilayha ci moom ruxu ruuxanaa sunu malaaka ba muy jibril yàlla daal di envoyé jibril ci moom nag moom da góor ñi Jibril daal di soppali xale bu góor fekk ko fa fekk ko fam ne problème am na de waaw moom da doon daw góor ñi moo tax mu dem beru ji yàlla daal di yebal Jibril Jibril daal di soppaliku jeune xale bu góor bu rafet daal di koy dem fekk ko foofu nee nañu fatamathala laha basharan sawiyan basharan mooy xale bu góor sawiyan bu jeune jeune jub xoj dara sikkul ci moom ba Jibril ne xaas aksi mu ko fekk ci teen bi muy root moom Mariama nekk xale bu jigéen jeune fii ba mu gessoo ba mu rootee bay yenu gessu di walbatiku dajeeg Jibril muy xale bu góor xaalat mu daal di waxta saase moom Mariam inni man mii di Mariam audu maa ngi muslu bi rahmaani ci borom yërmande bi min ka ci yow mii di xale bu góor loolu lu njëkk a wax nekk fa sa nankaan sama càmmañ na nga def moom Mariama bi mu gisee jibril loolu la njëkk a wax danay maa ngi yal na ma yàlla musal ci yow yow mii ab xale bu góor nga yal na ma yàlla musal ci yow in kunta taqiyan bu fekkee ragal nga yàlla man dong ma ne ci àll bi di xale bu jigéen nga fekk ma fi yow ngay xale bu góor maag yow dong ñu wet ci àll bii yal na ma yàlla musal ci yow bu fekkee ragal nga yàlla xoolal li wax rek avant tout loolu la njëkk a wax xamul kii kan la xamul kii la ndax daa ñëw naan si ndox xamul lan la bëgg xam moom daal li mu gis daal mooy nekk nekkuma en sécurité wéet xale bu góor fii bu doon suñ jamono jii xale bu jigéen bu dajeeg xale bu góor ci àll bi eh, sama càmmañ na nga def commencé indi connaissance commencé laajante numéro commencé voilà ndeysaan waaye moom Mariama loolu la njëkk wax de bi mu waxee loolu nag xaala mu daal di koy tontu. xaala mu wax ko moom jibril ne ko innama ana na nga xam ne man mii daal nekkuma lu dul rasulu rabbiki sa ndawal borom yàlla moo ma yebal ci yow li ahaba laki ngir ma may la man doom zakiyan bu baax beneen problème encore mariama nekk xale bu jigéen di jaamukatu yàlla bu ñëpp seedeel mbaax amul jëkkër mu ñëw ci àll bi xale bu góor ñëw ne ñëw taxaw kanamam na ko yàlla moo a yónni ci yow ngir ma may la doom Mariama dal di yenne ku yen woon won. ko yow sëñ bi lay wax ni lay <laughs> wax ni nga mané qalat mariama anna yakunu li ghulamun wa man nan lay amé dom walam yamsasni bashar gor basar masuma lal walam aku baxiyan te duma njaalookat kat o mu jeuker jesus vierge gor masuma tek loxo te duma kat nan lay amé dom nan lay amé dom allahu akbar wax nako deug de bonne question parce que lii moo war a tax nga am doom am jëkkër mbaa nga njaaloo te moom nee na ko man duma ma njaaloo kat man du ma mës a njaaloo loolu bu ko xalaat sax ñaareel mooy aw ma jëkkër nan laa amee doom qaala jibril ne ko kazaliki niki noonu qaala la wax nag rabbuki sa borom yàlla huwa moom yàlla lu mu wax mu ne alayya hayyun mu ne lool lu yomb la ci man yàlla nee na loolu lu yomb ci man la ma may la doom te soo xam góor yàlla nee na lu yomb ci man la te loolu la bëgg def nak, lu tax mu bëgg ko def moy wali najaalahu aaya damaa bëgg mu nekk kemtan lin nas ñel nit ñi dama lay may doom te jëkër jëkkër so xam goor ma may la doom jo xamne ne amul bay. yalla neena dama koy def ngir mu nekk kemtan ñel doomi adama yi kemtan la de kemtan la de Aysa am yaay te amul bay, adama amul bay amul yaay ndaysan waaye it nag danaa ko def mu nekk wa rahmatan yërmande min naa bu bàyyi koo ci ñun dana nekk yërmande goo xam ne day bàyyi koo ci ñun wa nekk na amran mbir mi maqdiyan lu ñu dogal ba noppi amul discussion di nga ëmb xaw nga ëmb amul discussion day am ndeysaan dàggasante dàggasante gi nekk ci diggante sayyidatuna maryama ak jibril ci noonu rek fa xamalathu jibril daal di ëf daal di ñëw jub soxna si rek ëf ci côté ween yi xalaas mu daal di ëmb mu ëmb mais ëmb bi da ko ëmb cycle normal neuf mois looloo gën a wér ci wax yi donte am ñu naan da koo ëmb léegi mu mot léegi wasin ko léegi mais ci biir wax yi da ngay gis ne maanaam ci yàlla bi muy nettali dangay gis ne demewul noonu li gën a wóor mooy da koo ëmb pendant neuf mois parce que bi Jibril waxee ak moom ba ëf ci biiram bi soxna si daal di ëmb ëmb bu ndaw dafa daw dem si jabaru soxnay Zakariya ja mooy yaayu kan yaayu Yaxya dafa dem ci moom ba mu demee ci moom mu nettali ko li ko dal ko ah man dama ëmb de daal di koy wax histoire bi ni mu demee waaw kon yàlla nee na fa xamalathu mu daal di ëmb moom soxna sa fan tabagat mu dem beru bihi ci sababu ëmb bi makaanan ci place boo xam ne xasiyan bu metti bu wéet ëmb na fi mu ne coow bari na ci dëkk bi dégg nga ku nekk ngi wax ñi am information ak ñi amul information ñëpp ngi wax loolu tax mu daal di dem beru ji encore dem gën a wéet bañ a bañ a feeñati fenn ci nit ñi mu làqatu ji daal ah yow xale bu jigéen boo xam ne dangay ngaa yiw di muuru da dégg muuru bu rafet baax lool yiw ñëpp di la seedeel mbaax nga jékki-jékki rek ah indi fi benn ëmb da yéemu day yéeme ci yàlla day yéeme de waaw